ngi nuyu waa référence actu di nuyu waa Sénégal yëpp di bëggee ñëpp nag euh, ci li nga xam ni moom lañ jógee muy Coupe d'Afrique des Nations Sénégal am fa ay ndam daanu ci finaalam mais nag euh, nee nañ euh, fi mu toll nii gaynde mer la fanaanoo incha allah dans deux ans Coupe d'Afrique dina am te am nañ yaakaar ni Sénégal war na mën nag bii di ñëw incha allah muy bu baax bi. ñu leen di ñaanal buñ demaatee incha allah yeneen compétition ñu indil ñu coupe bi mais Mame Gor Diazaka gis nañ ne euh, Égypte dem nga fa suivre nga match yëpp ba ci final sa profilu dem en tant que artiste la wala sa relation ak état moo la yóbbu. waaw xam nga man dama dem en tant que <clears throat> sénégalais en tant que patriote en tant que quelqu'un boo xam ni dafay supporter Sénégal parce que du la première fois may dem coupe d'Afrique wala coupe du monde wala yu mel noonu donc man saa yu jotee damay jóg ak sama ay moyen dem mais nag man yàlla dafa dogal. Euh, ki nga xam ni tey jii moo jiite sportu Sénégal muy Matar Ba ñu am ay relation yoo xam ni relation yu baax la ko donc nag mënuloo dem te amuloo invitation donc nag euh, ci invitation am laa demee et puis en même temps dem en tant que patriote tey tamit footballeur yi nga xam ne ñoo nekk euh, di représenter Sénégal ci Coupe d'Afrique bi tey jii bu ñu gisee yenn célébrité yi wala ñu gis yenn nit ñi nga xam ni fii au Sénégal nit ñi xam nañ leen bu baax te xam leen ci fulla ak fayda dina leen gën a jox jom dina leen gën a encourager pour ñu xam ni ñoom parce que man tey jii man fàmmuma benn jour man amul benn jour boo xam ne dama laa fan bu doon ay fan ay jour rek ma toog fii sama kër di jàpp canal di seetaan télé mais dama dem en tant que patriote même jour yi wax naa leen ko carrément nii ñu jàkkaarloo man leen man yéen ñi ñëpp fàmmuma ci kenn amul koo xam ne da nga maa fan wala da maa neex dañoo bokk réew mi. ngeen doon ay patriotes di défendre les couleurs de la nation ma nekk un artiste di défendre les couleurs de la nation ñu ànd nag pour suñu nation jëm kanam soo leen defee lu baax dinaa ko wax soo leen defee nag sunu lu noonu tamit dinaa leen ko wax affaire demee noonu quoi donc ñun demuñu parce que dañu fan kenn wala kenn mais duñu dem parce que ay patriotes lañ moo tax ñuy dem. justement ci fan boobu sax dañuy dugg ci débat bi parce que Aliou Cissé instant bi contrat am quelques jours wala quelque mois moo ci des mu jeex yow ban njàngat nga ci am d'accord nga pour ñu continuer contrat bi wala pour ñu arrêter ko indiwaat beneen entraîneur. waaw non Aliou Cissé tey jii xam nga tey jii entraîneur bu mu mën a doon ci àddina bi bu fekkee ni euh, club daf lay jël wala réew di la jël dafa am benn objectif bu tax ñu lay jël mooy Aliou Cissé bi ñuy bi ñuy renouveler contrat am dañ ni ko boo demulee final dañ lay daax mais final nga dem ko jël ko moo gën mais boo ko jëlul tamit atteindre nga sa tey jii Sénégal amul dara lu mu mën a wax tey jii Aliou Cissé may profité nag ci occasion bi di lancer Sénégalais yi. benn message mooy bala ngay dàq kéwal mu dem àll da nga koy dax mu jëm ci kër gi parce que tey jii Aliou Cissé c'est un bokkoon ci Lions yi nga xam ni ñoo football 2002 muy suñu premier final coupe d'Afrique ci leen njëkk a qualifié du monde moom mu bokk ci group boobu yàlla dogal 17 ans après mu joué ba carrière jeex mu dem jàngi entraîneur ñëw jël équipe bi fii Kasper Zak jaar na fi en plein compétition mu trahir ñu. bàyyi ñu en plein compétition ba pare xas ñu saaga ñu dem yoonam. Alain Giresse ñëw fi caxat caxatee équipe bi yàqu ko Amara Traoré jaar na fi dëgg la ci lion yooyu la bokkoon mais amul résultat donc tey bu ñu amee Aliou Cissé mu jël ñu yóbbu ñu coupe du monde qualifié ñu coupe du monde yóbbu ñu finale coupe d'Afrique. kooku bu ñu déggee ni mun nañu jox ko war nañ ko mën a gëm quoi te tey jii amuñu ay cent millions ak ay quatre-vingts millions yoo xam ne dañu koy fay ay Hervé Renard man pour man Renard gars yi ngi naan xam na dara mais dafa am sens pour man xamul tous boo xamoon dara des ci karadaas bi mais dafa génn Aliou moo dem final nit nag day gëm boppam Aliou Cissé c'est quinze Sénégalais 15 millions wala 20 millions yi ñu koy fay jabaram fii la dëkk. ay doomam ci école yi fii la ñuy jàngee essence su dëkk bi lay jënd ci dëkk bi lay daw xaalis bi ci dëkk bi lay yem te mu ñu indil ay résultats donc nag man je lance benn message boo xam ne dama koy lancer président de la république di ko lancer le ministre Matar Ba di ko lancer fédération sénégalaise de football nañu bàyyi Aliou Cissé mu liggéey liggéeyam mécontents yi nekk ci ruq yi nag taxaw di wax nañu continuer di mer kii mu ngi am résultat on ne change pas xam nga une équipe mu ngi gagné mu ngi dem nañu bàyyi jàmbur su fekkoon ne dañu toog quart de finale wala huitième de finale wala premier tour wala sax demi finale ñu mën a wax mais dem nañ jusqu'à finale. mais donc nag jàmbaar la. liñ koy tuumal mooy dafay tâtonner en fait. bu ñëwee ci benn tactique de jeu ñi nga xam ne professionnel lañ ci foot bi dañu naan tout le temps dafa war a changer kii dafa war a dugal kii même bu gañee sax dinañ ne Sénégal gañe na mais y a un mais tout le temps. xam nga Sénégal 14 millions de de d'entraîneurs la am. ni ñu nekkee 14 millions d'habitants noonu lañu nekkee 14 millions tey ji bu làmb xewee ñëpp doon ay entraîneurs mbër. bu football jotee ñëpp nekk ay entraîneur football bu way jotee ñëpp nekk ay producteur ak ay kii c'est noonu la demee sénégalais ñoo bëgg werante ak discuter. tey ji entraîneurs yi ci àddina bi yëpp laa la tactique la ñoom ñekk ñu ci biir terrain bi di football dañuy classé ay joueurs mais sélection bi tey ji bi tax ñuy wax naan Sénégal sélection la am euh, kii la am nu mu tudd ay individuel mais Aliou Cissé moo leen dem tànni tey ji Kalidou Koulibaly bi ñëpp di coow naan mooy meilleur défenseur du monde moom moo dem convaincre ko ni ko soo ma nangulee ñëw football Sénégal dinaa la yóbbu Coupe d'Afrique naa la football la Coupe du te li mu ko waxoon yëpp def na ko tey Kalidou Koulibaly boo taxawee moom naan kaan xamul dara da lay mbéj il faut nit ñi gëm ni mën na dara su mënul woon dara du yegg si fi mu yegg si ñun avant ñu koy jot laal nañ ñetti entraîneur laal nañ benn sénégalais ak ñaari tubaab demuñu fenn. kenn xam nga nee na jubanti moo yàqoon bëti golo Sénégal dañoo bëgg kii fi lañ fi nekk di wax di wax di wax Bruno Metsu dem fi kii ñu bàyyi ko fi bu mu génn dem ay al aqli xawma ci dëkki arab yooyu ba ni mu décédé ba mu fi jógee ba léegi ñu ngi door a am entraîneur bu ñu yóbbu final man ak Aliou Cissé bis bu defee njombe nag boo xam ne njombe la dañuy taxaw wax ko man keroog bi ñu njëkkee fubal suñu match contre Algérie algériens yi ñëw di ñu gaañ di dajji booy yi booy di tëdd dama gën a dénoncé ko ni leen il faut ngeen joxe seen tànk yi il faut ngeen doon ay góor yàlla mun leen fi nekk Sénégal di leen défendre di leen jox tey ji xool ni leen président Macky Sall terale bi ñu ñëwee jox na leen ku nekk vingt millions te dañoo daanu. mu jox leen ku nekk vingt millions may leen ay passeport diplomatique ba pare dëkk bi population bi yëpp génn sargal leen tey jii am na ay footballeurs yoo xam ne tey jii France lañ juddoo yoo xam ne xalaatuñu woon ci seen àddina dinañ ñëw football ci Sénégal mais fi mu toll ni commencé nañ di contacter ay boy ci équipe équipe bi naan leen ñun dañu bëgg a football Sénégal ndax ni ñu gis lii leen gars yi defal tey ji ay ñoom Bate fi mi Gomis neuf la. tey jii France la dem fu fubali mais tey jii bu démb doon tey fii lay fubal sargal bi ñu sargal nii tey jii France bi ñu jëlee coupe du monde sax ñooñu amuñu ko donc tey jii képp ku juddoo France tey doo doon footballeur yaa ngi ñaan yàlla tey jii ñu woo la équipe nationale équipe nationale Sénégal nga ñëw football donc nag man sarga bi ñu sargal booy ak li leen président de la république defal man contente contenté laa ci am ak mbégte message nag bi may lancé waa fédération bu fi kenn dof doflu ba naan da ngay changé Aliou ku fi niitu di nga lakkale parce que nit ki bu liggéeyee dafa war a dégg waaw góor merci moo bu ndaw la mais tubaab du ko wax ku liggéeyul merci à Aliou Cissé c'est un guerrier. d'accord merci à Aliou Cissé mais aussi sargal biñ sargal Lions yi ci réseaux sociaux yi boo defee benn remarque dañu naan ne c'est trop parce que dem nañ joué nañ indiwuñ coupe ñëw ak defet ñu sargal leen sargal bu triomphal en même temps aussi jox leen ay millions. xam nga nit ñi dañu jóg spontanément su fekkoon ni sax nit ñi ñoo euh, président Macky Sall wala benn politicien wala kenn moom moo jóg sensibiliser nit ñi pour ñu génn ñu mën a ko wax man ci man ak Lions yi ñoo bokk avion. ci avion bi laa wàcce man bi ma wàccee di door ak taxaw aéroport gis naa nit ñi bari mais bi ma génnee ba gis nit ñi dama tiit nit ñi dañu génn parce que footballeurs yi su fekkoon ni final bi dañ leen dominer quatre-vingt-dix minutes gagné leen ñu doon ay yambar gars dañ leen di mere. mais gars yi du ñu gis ni Sénégal première minute bii bi ñu dugal kenn xamul ban genre bii la. ñun ñu nekkoon ci stade bi man maa ngi fa bal bi kenn bal bi dugg na ci stade bi lu mat ay quelques minutes gars yi toog gëmuñu ni bal bi dugg na Sénégal quatre vingt di quatre-vingt mën naa wax sept yi des ci match bi yëpp dañu tànc algériens yi. algériens yi chaque trois minutes ñu daanu arbitre bi favori leen jàppale leen donc nag ñun tey ji booy xeex ak nit arbitre baag ñëpp faral ko mais loolu moo tax sénégalais yi génn xam ni booy ay jàmbaar lañ ay der lañu arbitre bi farul ak ñoom comprendre la algériens yi mën nañ tricher di leen gaañ te malgré tout ça dañu dominer match bi 90 minutes donc man je suis fier de mes lions voilà ku fierul nag sa business la mais ñun on est content